Barthélémy jas gii lima ma waxoon keroog rek lay répété waat gii Mari Sagna kuy xeex ci mbedd mi <laughs> gauche ak droite di xeexal askan bi boo ko dugalee bir biir euh, assemblée bu la xeexalee nga xam kon la ko yónni mu ngi koy def gi man tiituma ci gii Mari Sagna biir assemblée non non parce que xam naa ne gor la ba pare nag patriote yi dama ko def benen live ci ci ci Barthélémy Dias nga gor pire bu amul ne gor la gar mun nañ ne wax ak mais Barthélemy, bu la jox kàddoom man ma am ci firnde bu bu la jox ndax gor tamit ci wax rek nga c'était pas moi c'était pas moi mais dama fekk seede bartelimi action boo xam ne bu ko neexoon bañ bu ko neexoon je dis ne je m'en fous mais Barthélemy action boobu je vais vous la raconter euh, dama amoon benn am dama amoon dama am benn copine copine boo xam ne mu ngi Dakar googu di ma dégg du ma tudd turam parce que c'est ma copine kooku mu doon génn ak benn ñàkk un Nigérien lii nii Barthélemy sama seede la du ma du ma ko sosol du ma ko yokkal li may wax Imam Ndiaye mu Barthélemy mun na ma seede

ñu ne ko doon nañu ndeke ñag bi des fois da daan dem Europe di ñëw sans que moom mu xam ne ñag bi da doon dem dégg nga ñi ñu jàpp ñag bi ci li ñu wax ñoom jàpp nañ ko téye ñag bi defeere ñag bi tëj ko 10 ans ci affaire de drogue ñu tëj ñag bi 10 ans Barthélémy bu déggee lii may wax xam ne li may wax dëgg la ñu tëj tëj ñag bi far instant yooyu ñu jàpp Barth defeere moom it Barth mu nekk Barthélémy ci biir kaso bi.

ni mu mel ak ni mu bindoo su ma ko waxoon ne ko ci lii laa nekk mu bàyyi ma te man demoon naa ba bëgg ko ba bëgg ko takk mu waxanteeg loolu Bart expliqué ko ne ko Bart dimbale ma rek ngir yàlla yow boo génnee nga dem nga bàllul ma ko te nga fexe ne ko même bu dul dara sax des fois damay oo rek man ma koy oo rek au moins parce que samay mbokk munuñ ma oo fii mais nu au moins may dégg benn doomu aadama parce que je dois rester ici dix ans tay tey a quelques mois rek ñu bayiko quelques jours ou quelques mois ñu bayiko té instant bobu ñag bi 8 fa ans bu les dafa nek nit ko xamné il est pas sincère mu promettre lolu ñag bi ndax nit ki dang koy jappé peser ko ci ci doxinam ak ci waxinam xam nga tay bart bi mu na ne ñag bi qu'est-ce que j'en ai à foutre du sénégalais de deux d'ici six ans bala mais bart la promesse bamko ko Je promesse faire troisième jour de liberté Je dem wër sama copine bi ba ne ci biir këram na ko ko bi expliquer mu dem ba ne sama copine bi mu ne ma man bima ma ñu ne ma wuyul ma kan muy ah télévision mu ne ko waaw ne ko diw sàngam moo ñu boole mu ne ko ah mu ne ko yegsi mu yegsi mu toog Barth ma ne la chaque semaine topp ci sama nopp copine bi di ko wax ne ko bu dul dara sax dee koy woo des fois nga yónnee ko añ benn sin mille dix mille bi nga koy yónnee rek mu ne ko sa digganteeg doomu aadama ak fu ngeen jaar ci lum tuuti tuuti tuuti sàmmal lu tuuti loolu la ko Barth wax Bart yedd yedd sama copine bi ba delu mom suis koy ko ah mu ne la fi Bart bo ma vacances la fi les li gëna rafet moy de temps en temps yónnee ko ben 10.000 mille 5.000. cinq ko lek def ko sax sarax ndax bu dara rek xolal mi dox parce que Bart il a respecté sa promesse et pourtant ce c'était pas un sénégalais waxatuma la nag Barth taxaw devant tout le monde devant le Sénégal promettre nous lo tu prison la tenir promesse am dox mon ba sama copine mu dem diko dem dem ko des fois mu ko même indi na lu rafet pourtant mu ci lu mais parce que est sincère Tiens à ses paroles Barth du day bu waxe day def Koku tu on a def lolu waxatuma la nga taxaw Dakar nga Sénégal Ni yeen dina leen sen assemblée bi kon man Bart ki la jox bu la nga que di nga donc je pour man lolu sax rek doyom donc sincérité Barth ah, dutewuñ ko xam nga man kan laay comment ku bett mooy Ahmed Aïdara te man pare naa ci waxtaan naa ci la ma ciy wax mais lii di Barth lii di Guy Marius Sagna lii di euh, euh, député yeewu askan bi parce que c'est des patriotes te bu dee patriotes yooyu damay may gëm damay sama dënn bi la ci nekk moo nekk seen dënn bi ñoom dinañ taxaw foofu pour askan bi amu ci sikk sàkka waxtuma la Ndeye Roqee Ndiaye euh, député la bu yeewi askan bi kooku kooku patriote la kooku da doon nekk devant kooku non patriote dafa am motax tax ma ne leen bir bir bir yeewi askan bi nek nek bir assemblée nañ leen jox toutes nos confiance jàppale leen te ñaanal leen ñom xamné mission bi leen dénk xolal buñu kenn divertir mission bi leen di ju ko dox ba Bam ba ba mu sëkk ba sëkk parce que c'est des patriotes lool rek lañ war di xalaat toujours ne ñi ñu yoni c'est des patriotes té vu que c'est des patriotes ils vont pas nous trahir ñooñu dinañ dox sen mission di leen jox seen mission ba mu wër ba mu mat sëkk waaye itam xoolal ñoom biram suley ñoom ñëpp nga fa ah am ñeneen ñoo xam ne xamuma leen ñëpp ñoom ñëpp c'est des patriotes donc nañ leen jox cette confiance ñi ñuy wax mais lu tax ne gii na gàddu kees ga ba gàddu lu fa dara new gii yow lañ dénk kees ga buñ ca naree def loo xam ne ne waru gii nangul ñu suñ kees téye kees bi bart xoolal nañ foncé li ñu bëgg tout tout na na dund ga wàññeeku li seen li ñu lëbal leen lépp feeñ ba euh, baat loolu lañ leen sant kon nag xeex leen xuloo leen kajjante leen ba ñu am li ñu bëgg mais nag mënuñoo taxaw ne ñii dañoo bëgg def lii ba pare naan leen na leen kii yow ku di jàkkaarloog Macky sàll di nga def euh, ay euh, di nga tranquille ah koo xam ne mu ngi ci luubal koo xam ne mu ngi ci def lu bon koo xam ne mu ngi ci dictature kooku boo gajjantewut ak moom doo am loo bëgg donc nak, wu ngeen bugg ou wala ngeen il faut laisser les députés travailler et c'est tout et c'est tout te ñu jéem focaliser wu ci 2024 bi bàyyi suñu député yi ñu liggéey jéem a fexe ñu nemmeeku tuur focaliser wu fexe nit ñi am seen pièce d'identité ba le 2024 ñu mun voter mu mais pas toog ci ay Mimi Touré vaut rien li. moom ak Adji Sarr ca paquete léeg-léeg ngeen jël leen ne leen ca poubelle ba Adji Sarr moom moom kooku moom maa ko wax parce que lu gën grave moo que je ne leen dinaa de a ñëw euh, bu ngeen ko fàttale ko man ci 2000 euh, bi ci mois de mars bi. vidéo boobu biñ ma yónnee woon noonu comprendre ne déjà moo tax gis nga APR man lu ca nekk dama lay moytu lu ca nekk dama lay moytu parce que ñoom ay doomu ils sont pas bien ces gens ils sont pas bien. Euh, xam nga njëkkoon naa def benn vidéo ne leen vidéo bi lii ak lii xoolal dañ vidéo bi dama koy sànni rek ñu jël ko dagg vidéo ba xoolal fi ma naan vidéo bi ñi boobu noonu bi ma gis ma waat ne sama doom parce que vidéo bi maa ko seetaan moo ne bu ñu waxee ma ne leen mais man lu ma gis jaxaran jaxaran seetaan ko même si ça dure euh, benn une minute ou une minute dix xaw ma si je me rappelle bien moom la vidéo ba mais barki bàyyi sama ko gis vidéo buma gis la samay bakkanu doom mako gis luma gis la luma tek sama beut la mais xamna né vidéo bi ni féeg la légui nak fa waxé né len vidéo bi féeg la ñu dag ko ba paré nak sanni ko vidéo bobu ça va faire peut-être le tour du Sénégal wala tour du monde ñu dag ko dé sanni ko dindi fi may waxé né féeg la xam nga donc ça veut dire que c'est des gens c'est des manipulateurs ñom ils sont prêts à détruire les gens mais nak kako sanni dagg loolu sànni ko ma ne ko tu connais pas Adji Ndao man li may def dama ko gëm li may def dama ko gëm changement Sénégal inshallah day am day am ci yàlla ànd te gëm nañ ne yàlla ànd na ci ndax bu sinon kon heure bii ñun ñëpp tuxu nañ fële mais fa ñu nekkoon di wax démb ba léegi fa la ñu costé donc nañ leen focaliser wu ci 2024 bi bii pas amul bii mooy suñ dernière chance suñ dernière carte I'm y nañ fi local yi am fi qui yi mais vrai c'est 2024 amul ay ma amul demba c'est pas des patriotes ils ne font pas partie de Pastef Askan donc c'est leur problème def lu neex ñun on va amener au palais du moment qu'on vous amener Sonko au palais ni ñëpp divertissement yi nañ ko bàyyi xoolal jël leen seen téléphone yi ku ngeen xam seen mbokk seen dëkkandoo sen andando, sen région fexe ñu ut sen pièce d'identité fexe bu inscription yi ubbee ñu inscrire leen massivement ba nga xam ne bu ñuy dóor Macky Sall amul deuxième tour faute de ko premier tour mu jeex tàkk mu jeex tàkk saa ñu nekk fa di wax c'est-à-dire ay contexte yu ma xamul premier tour Macky Sall dégage voilà li ce que sen nañ fexé nous focus ci 2024 Nous mi Touré yi ñep ñu pour ñu ñu ci suñu objectif Nous ñun lool waruñ ko nangu ñun patriotes yi waruñ ko nangu ñun nous am luñ bëgg at luñ yaakaar Nous luñ wara def ñu yoni ñu ci ñu donc nous focus ci loolu comme li ma doon oote diaspora bi nañu fexe ñun ñu suñu biir ku nekk sa région nga fexé sensibiliser nit ñi ba ñoo carte d'identité parce que les futurs votants ñoo ont 18 ans wala ñu 18 ans bala bobu ñun ñu xam leen ñun loolu lañ commencé di def kaw la ñi nga pièce d'identité Ils ñu ngi leen ñi ñooñu dañ la ñuy dem extrait déposer pièce d'identité nga ñoom am amna fa ñaar ñetti groupe astafurlah ñetti groupe ñent la waron don mais benen groupe bi taxawagul mais actuellement ñetti groupe yo xam ñu ngi wër Kaolack ñom ñëpp ku amul pièce d'identité dañ lay recenser jël la yóbbu la utal la pièce d'identité ñi nga xam ne am nañ non inscrit yépp ñu fexé di recenser leen ba heure bu ouverture euh, inscription yi mais pour l'instant on se focalise sur les primo-votants ñooñu nga xam ne c'est des futurs votants ñi nga xam ne ay mag ñoo xam ne liñ ma doon wax keroog magum jëmm yoo xam ne mosuñu am pièce d'identité donc ñooñu yoo yow mu daan utal ay pièce d'identité loolu diaspora bi ku nekk na nga def sa région wala sa sa sa sa sa village foo dëkk fexeel ñu fexe ñoom ñëpp ñu am pièce d'identité parce que ñun dañoo war a ne serait-ce avant boobu plus d'un million de personnes yu am ay nouveaux votants kese loolu daal la bëggoon wax voilà ah Baye Niass yow de ziar naa la ku luy bi Niass Goumba Abdallah Barafal jaxete ak dem Ngañ yow suma serigne nga ziar naa la lu bëri voilà loolu rek la leen doon bëgg wax leen nuyu di leen ñaanal euh, bonne fin de soirée euh, voilà nañ focus te bàyyi mimi mimi buñ ko nangul fenn fenn fenn na melni ni suñ dàll carax yi ñi utiliser pour dem toilette jeex na c'est ça Mimi toué. allez bonne soirée à tout le monde

mooy loolu on est waa waaye Lamine Lamine Bayo nuyu naa la yow it allez bonne soirée à tout le monde lu ñu naan Mariama jéeme jéeme ji waaye yéen suma mbokk joolaay Mariama Mariama yow sa sant bu naqari bii nag Mariama ah patriote dina naqari sant sant bu naqari bi voilà et David Keita bari nuyu naa la voilà et bonne soirée à tout le monde Sarko di voilà Rosemary Thank you for you. <laughs> Allez, au revoir.